Serigne ak Gamou Gamou jël nañ la Gamou loolu wóorul Gamou remplacé na ko Gamou laa na ko waaye xale ba bañ na ñaar ñoom seenam komba xalaat naa jël bu dina ci am bàyyi xoolal rek li ma la wax xoolal rek jël na tànk ba daan na ko la ilaha illallah waaw waaw daan na la jël bu danga waaru de yaa yey soonu de xaw ma da soonu xaw ma sukk eh gàmmu wër nañ ko wër nañu gàmmu gàmmu da ngay daanu gàmmu gàmmu daanu nga ah way daanu nga waaw jëlal rek jëlal rek boo ak soo amee di nga am ñaar yëpp ñaar demi-finale wala ñetti demi-finale boo xoolee côté bële ngañ seen a nga fa ak libidoor hey ngañ ak libidoor ngañ ak door waa libidoor de ku ko bëgg a daan doo ko déglu loolu moom yàlla dogal na ko bàyyil séeri bari ñu xal de loolu léppi combat ci géew bi hey ngañ seen ngañ da koo bëgg a taf placage li bi door bañ ngañ yokk na ko dugal na ko da lay génne da lay génne ah oui ngañ jël nga avertissement lebi door hey seeni xale ba wala jël nañ sa tànk jël nañ sa tànk jël nañ sa tànk wala yaay daanu yaa jël tànk dinañ la daan Modou Sarr wër nañ la Modou wër nañ la Modou da ngay daanu ay waay Modou waay yéhéhé Modou ñu ngi koy bés Modou lànk na de Habib Modou bañ na de yaa yey xaalis baa tax daanu na daa bonde ci koom Libidor jël nañ sa tànk ngañ seen jël na ko ngañ jël na ko ngañ dina ko daan nga nga yee ngañ ak libidoor laa ilaha illallah déeret ngañ ak libidoor lii mitti na de waaye ngañ seen ak libidoor mi lu ñuy defante nii libidoor a ngi génnal boppam libidoor a ngi génn libidoor gaañu na mënul dem ma oo ko bàyyi leen ko bàyyi leen ko bàyyi kenn laal li bi lan la tànk bi la xanaa. seene xale ba ñu xandaalu seene xale ba eh, seeni bar ñi laa ilaha illallah ay waay seeni waay ay waay waay Habib xale ay waay seeni bar ñimi waa kii yéen a ah! a ah, man de waaru naa ci seeni waaye seeni sembeen laf cat dafa lu la neex op op op jël ba mu ko daana rëy mu ngoo ngay dem kaa ñu dem seeti seeni mais seeni li ngay bëre encore une fois laajoon naa la ko ndar laajaat naa la ko ndakaaru waaw kon tamit rek dañ noo jàngal bëre rek waaw nu doon du ko suñuy papa dama koy doon. sa papa da doon bëri. sama papa yëpp ah. waaw. kon Nguémé da ngaa fekk ko ci kër gi. waaw dama kaa fekk ci kër gi ñu manqué ay champion ma ñëw doon xale doon caatu bari ñi tamit maay caat mi waaw ñëw di wane sama boobu si samay mag kon loolu dooli sant yàlla. bi dem nga final da nga koy yóbbu bari ñi xanaa kon wala. waaw kon d'habitude rek waaw jom fu la fay la ñëw jël see rek incha loo jëlee tennis yi ban médaille. or waaw. yaag Mamadou Faye yëpp ku ne or. waaw ak kan. yaamu kon ñetti or yi yéen mbë ñett ko indi. waaw ñoo koy indi ngóor tamit. ñu ne ko waa lamba noowu la waaw. di kon tamit rek ñëw jël see rek incha di gërëm waa bën yëpp fukki penc yëpp di gërëm ñëpp waaw dina waa ama seen fay ñu jàppale ma bu baax a baax. waa waaw damay ñëw jël sa nag. kon ba ci mu xool fooy mu jóg final. waaw jël ko rek incha allah bu Grand Yoff wala bu Kayar ak Ngagne Sène Ngagne bu kaay baax Tëngéej mais ñaari mbër yi ñëwaat nañ ci géew bi ginnaaw mi taa bi Libidor ak Ngagne Sène seen combat nag metti na lool ndeysaan na tànk ba manta ne day bañ ku ci jël avertissement sa morom ñàkk ndax léegi hey ngañ war na ko da koy daan war na ko ndombo trois appuis li bi door tey doo ci wala di nga ci génn ay ngañ seen ngañ bu ci li bi génne nga am problème de kon say mbokk bàyyi la faw nag ndax am nga penalty war koo dugal ci camp yi ñu xool fooy mu jëkk sa penaati ngañ ngañ war na li bi door ndomba fii ci gaal gi terrain gaal gi maam ca jaara canga ko tëgg di cang-cang production ko tëgg mu ngi bay bopp bi mu bañ daanoo wëlbati na ko mu jaa daan na ko ñaata huit fois juróom-ñetti yoon ay ngañ ngañ yërëmal kon oh